di ñu bàyyi xel ñu ngi leen nuyu di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku si yéen di nuyu kilifa diine bu baax a baax ak kilifa aada yi di nuyu suñu sëriñ sëriñ Babacar Sy Mansour xalifa général kulu Tidiane yàlla yàggal ko fi loolu di nuyu almuntaxa borom mbégte mi yàlla yàggal ko fi loolu moom tamit képp kuy xalifa généraux rawatina ñi nga xamante ni mbokk yi ñoo ne si jàng bi yaakaar naa ne nag avant pendant et après la wax te ñoo leen ko dig yéen internet yi moo waral tey nag bi làmb ji jeexee ñu wàccaat ni mooy jàmm gën fas yéene fi toppal réaction Liss Ndiago yaakaar naa ne mu ànd seeg samay moo Mourou Anta bu Gaston mi ngi fi Makkan bu fekkee mi ngi fi ak jaara bu Medina TV mi ngi fi yaakaar naa ñu fas yéene seq waxtaan bi rek ak ki nga xamante ni mooy Liss Ndiago ginnaaw bu mu bëreeg Jos démb foofu sa arène nationale daan ko jël bu rëy bi nga xamante ni bokk na ci jël yu gën a rëy démb si stade du ñu guddal nag dañ koy nuyu rek moom liis bàyyi ko mu ñëw internet ñu doog waxtaan ak moom mbir bu daane day xew ñëpp lay woo. di naa la Ndiago waaw ginnaaw bañ sant yàlla sant Yeesu Kirist ak ñu ngi ku ci mel ni bébé ak mami borom France suñ papa Idi borom Amérique ak yaay pël bu rafet suñ yaay ami affaire di nuyu ñëpp di nuyu waa jàmm ga di nuyu képp kuy bëgg Liss Ndiago booy yëpp nga bëre sa diggante ak Pokola Balde même pas un mois sa diggante yaag Zoss taxaw coow li nag daal di ñu bëri naan liis Zoss du woon yoonam coow li bëree moment boobu préparation bi yaag sa staff noo ko doon waajee. waaw di waajal la ko doon waajal suñu combat. waaw di waaw parce que boobu léegi tamit loolu noonu si combat man ak Pokola. bañ génn si combat ma Pokola sama combat ak taxaw kon nañ si nekk rek waaw benn allié bu ñu doon dara moom lay dawaat quoi. mais mais mais coono yi mu bëree woon sa côté ñu gis ni sa diggante ak Pokola sa communication la gënoon bëree. diggante yàgg sos. ngi ni dafa am li nga xamante ni danga nga ko dencoon. mais après lamb di nga wax lan la lan nga dencoon liis balaa ñuy ñëw si combat bi. waaw lamb ak coono ñoo ànd. làmb moom ak coow waatu quoi waaw parce que mënoo wax làmb di si génne coow. Mm-hmm. làmb la rek lépp lu si coow lu si mën tamit si làmb la rek. Mm-hmm. waaw mais ñun moom toujours dañ suñu mm-hmm. nga dugg stade gis mbooloo bi nga xamante ni macha allah dar nan la nga dugg gis sa adversaire Zos ku nekk xam ne nag démb Zos koo xool xam ni démb préparé na combat bi comme ni mu ko war a bu dee côté entraînement entraîné na. ay mbokkam dar nañ ko nan nga gisee démb sa adversaire laata ngeen di si ngeen di jàkkaarloo yéen ñaar. waaw démb moom fu dëgg yàlla bu dëgg neexee entraîné na waaw indi na forme indi na doole bu wóor dama loolu laa bëggoon si moom ko wax voilà pour mën a wane sama bopp. Mhm. wala muy bëgg muy bëre rek samay adversaire ñuy entraîné ba ñëpp xam ne entraîné rek. nga mun a wane sa boobu si ñoom quoi. Mm-hmm. waaw. arbitre sifle nga yëngu combat bi lu waral loolu. waaw arbitre sifle loolu lañ ma bëri loolu ak ma bëri loolu quoi. Mm-hmm. sama waa équipe loolu lañ ma bëri woo ñoom Tigre de ay Batista waaw ñoom Abdou Diouf ay Gabaar ñëpp. Mm-hmm. loolu lañ ma bëri loolu ak ma bëri loolu quoi. waaw te boo ma ko bëree tamit gis nga yàlla suturaal nañu mu mel ni coach bi avant ngay na si géew bi ak yow pendant deux minutes ba trois minutes toog na di wax ak yow. moo boobu lu mu la doon wax. waaw lu muy wax mooy mooy jël sa temps rek waaw jël sa temps maanaam nga xool la fi indi quoi waaw te combat la am feneen fu ñu mënoon yóbbu. Mhm. waaw nekkul combat boo xam ne dañ koy fër ko fër ko quoi. Mhm. moo tax ma a jël sama temps. mbirum temps bi xaaroon nga ko. waaw man xaar naa lépp xaar naa lépp parce que bëre dóor la ñu wax. Mhm. te man lépp laay def. bëri ku mel ni sos yombal. waaw yombul. yombul parce que mbër la ko te mën gis làmb mhm. te champion la ndaanaan la mhm. waaw te bër na fee ku ne daan na champion bu ne mhm. waaw mbër la rek tan ko loo koy wax waaw lu ma wax mooy tamit bu nekk champion nekk ndaanaan waaw def fi waa tamit boobu léegi tamit dépassé wu ma ko ñaanal jàmm rek waaw di ko ñaanal jàmm ko waa fan nga jëm waaw fu ma jëm mooy si làmb rek. maa ngi entraîné rek di waajal. Mhm. waaw Aliou lépp lu mu d'accord sama ménageur ak sama staff. Mhm. ak booy lépp lu ñu nangu rek man mhm. sa combat ak Pokola nga défier Boy Niang. li si làmb làmb la. gis yëpp maa ay ëmb seen ak ay Boy Niang. la moo tax am nañu ay mbër rek ay ëmb seen ay Boy Niang ñëpp làmb la mën a ñëw. billaay. boo ñaa ko daan mhm. boo ñaa ko daan du ëgg kii kii zor mhm. waaw daan naa zor ñoo ñu bëri zor ay ëmmal seen ñëpp suñu grand lañ war nañu mën a may chance ah waaw waaw nañu may chance bu bëri ay ëmmal seen ay ay boo ñaa lance defi de booy war na alxuraan étranger de suñuy grand lañ war nañu mën a may chance bu bëri hmm? waaw ëmmal seen mel mi waaw grand contre petit rek nañu may ñu bëri yow fu Sa Thiès mënul dara yow mi mën nga fa dara waaw Sa Thiès nga wax ah liste tamit dañuy wax dañuy waxtaan te dëgg rek neex yàlla. Sadio nga wax koo si entraîné na mois wóor alxuraan mooy mhm. mhm. leen mhm. waaw parce que man dama leen bëgg a xamal du man ak ñoom man ak seen mbër la quoi. Modou Anta nee démb da nga daan Zoss avec la manière dem si ay supporters yu Arafas jégalu leen li passé li fi xewoon te xam ne du yàgg ñoom yàgg Arafas la. waaw parce que dama daan ñëw jub ñoom am yenn booy yu yuuxu di saaga. Mhm. mooy leen du mën ak yéen quoi mooy seen mbër la. Mhm. maa moom ñooy mexe na xaalis bi. wala pas mën ak supporter yi quoi. Mhm. mais naa tontu na lu mel noonu parce que nee na moom ay xarit ngeen ku nekk da liggéey pour yóbbu sa kër. man jaamu ngeen rek doy na xarit quoi. Hmm? waa jaamu ngeen kese. Eh. maanaam moom moom. Hmm. bu naxul boppam. xam na ni yàgg yàgg moo liste yu bëre. waaw bu naxul boppam xam na ni yàgg yàgg moo aar face yu bëre. jot na la man làmb laay def. Hmm? làmb rek laay topp bu ma ko joxoon tey tey damay bëre guddi guddi. <laughs> wax waxuma la sax moom kese ak keneen ak keneen. waa da Ndakaaru waaw yow tugut waay tëkkuwuma benn mbër déggum la waaw mais muy moom ak VIP ak ñëpp ku ma si jox guddi guddi damay bëre mais sa diggante Ada Fass lan la non non sama diggante ak mbër yëpp ngay wax bul wax Ada Fass mais surtout Ada Fass parce que booy lu ñu ko lu ñu ko sa booy lan moo waral lan moo nekk rivalité bu nekk seen diggante lan rayante wu ñoo kenn kenn wóor mhm. du fi mbër ko waa mhm. waaw noonu liggéey rek man maa ngi liggéey ko waa man ku ma laam boole rek amateur yi ban waaw avant tamit amateur yi maanaam ñoom luy làmb rek ñoom maanaam loolu la ñuy waxtaanee quoi mhm. avant tamit noo gis ni làmb la quoi mhm. waaw mhm. amateur noo gis ni làmb la ba si yéen journaliste sax xam nga ne instant bi mooy loolu ak réalité bi loolu la voilà mais ñun yaa xam duñu si dara voilà man topp ma si nit du ma tëkku benn mbër xamul mbër bu may laaj naan damay pour topp la pour bëre ak yow waaw mais maa ngi entraîné bu baax a baax a baax waaw ku ma lam boola la dinaa bëre ak yow quoi ñu ñëw ci ba tey li gën a ñor question bu doy waar nag booy déglu est-ce que Liss Ndiago mën na daan Ada Fass est-ce que Liss Ndiago mën na daan Ada Fass déglu rek may nañu rek ngir yàlla mbër mee ngi nee na tontul boppam mën nga daan Ada Fass non loolu loolu du ma si tontu waa ndax loolu lu ma si tontu quoi. non loolu ma si tontu. mais ma si tontu. daa gis na ñaari combat yi mu génn. Hmm. ni bi mu wedd ci diggante moom bokk laa fàtte daa tax minimiser aada wala. waaw du ma minimiser mbër amul mbër booy minimiser. waaw maa bëgg a xamal làmb ji cet ba cet mënoo si génne mbër bu ma dàq bëre. Hmm? Ah, cet ba cet ba cet laa la wax cet ba cet hmm. bépp licence buy nekk CNG mënoo si génne mbër bu daax liis bëre hmm. wax hmm. bi yan coono nga léegi yow léegi démb loo gis ba mu simee ko non gis doole waaw gis nga doole bu doy wala na beneen combat bu muy bëri doole bi day gën a yokk voilà mais mais mais avant guy gi Modou Anta dama jëli Pokola Baldé bu combat Ama Baldé dese deux jours laaj ci diggante mag Liis Ndiago ma leen yéen a bëri yéen ñaar combat capital combat de l'année mu ni ma Liis Ndiago ay mbokkam dootu ñu ko digal mu bëreeg man lan ngay tontu si loolu. lu jot a paase woon du ma si wax quoi. yaa ne de. waaw moom la rek mais maa lu nekk sama kanam quoi. Hmm? li kaw laay tontu état bi. mais xaalis ma li ci rek laay tontu état du ma gëstu ginnaaw. kon ñëpp Pokola mu si ginnaaw boo yëpp a ngi sama ginnaaw. Liss <laughs> daa nga Pokola di. a booy maa ngi seen booy kopp mbooloo. waaw ah, loolu moom yàlla laa koy baal ko waa. non moom am mbooloo ko Hmm? mais sant yàlla bu baax awa mbooloo. Hmm. yaa ngi ñoom. waaw hmm. ñoom ñooñu ay morom la ñooñu ngay waxal ñu waxtaan seen biir quoi. man maa waaw mais Liss Ndiago mii. waaw waaw waaw wax yooyu ñooñu seen ñoom maam nañu waxtaanee nañu ko waxtaanee seen i morom. du ma si kat boo boobu. non ñooñu mënu ma wax ñoom parce que boo ko si catégorie boobu quoi. Ah, moom Modou moom nee bu leen lim ñooñu non combat guy bi. non guy bi moom instant mooy loolu man nañu ma jox booy ne si kanam rek. lamb bu amateur soxla. mais Liss guy nga combat la Sénégalais yi lamb yi soxla. mu mu yàqan. walla ay ak si kanam ñoom Ouma ma ak ñeneen nañu ma jox si ñooñu man. mais instant bi Modou Anta bi Liss Ndiago lu mu bëgg a wax dëgg waxagu ko diggante ak Ada Fass moo ko ñor. waaw lamb la Sénégalais yëpp soxla. leer na. waaw ñor waxal si soxla. walla. avant combat euh, waaw mais tamit lépp loo gis rek ay waxtaan la ko yaa ngi dégg. voilà man moom lu ma la mën a wax mooy xale laa rek maa ngi entraîné. waaw te booy yi gis nii si lamb yëpp. nañu waajal rek man moom maa ngi fi pour ñëpp. waaw maa ngi fi pour ñëpp. non instant jotaguma avance moo jotoon avance booy yëg ko yow. Hmm. jotaguma avance. waaw non jotaguma avance. ay accord mun na ci am nii rek mais jotaguma avance quoi. moo mënu ko tàggoo bul fàtte ne Siteu yal mbin bi war na bëre ki nga xam mooy Modou waaw Laurent Laurent day bëre samedi bi Laurent day bëre tamit samedi bi waaw Laurent day bëre samedi di woo àdduna di si woo ñëpp di woo booy yëpp waaw day wane nañ ko waajal bu baax samedi biir ñëw ko Laurent bi waaw donc ñëpp ñëw mooy loolu di ko ñaanal ndam bu seddu guy waaw Siteu Modou Lo ñu war a bëre combat royal Siteu di sa grand ngeen bokk jàmm gën yéen waa jàmm gën nan ngeen di waajalee euh, bi la combat royal ñu koy waajal bu baax a baax baax di naan yàlla yóbbu ñu see jàmm ak salaam may ñu si ndam waa waaw maanaam jot na ko waa jàmm gën roi dugg fi hmm? wallaahi jot na dina yomb ak kéene waa ji dëkk parcelle am na mooy góor ak góor ngay wax lu yomb waaw lu yomb baaxul si góor la waaw dinañ wax ji lu mu gën a bëri seen côté muy gën a métti si yéen. waaw loolu ay waxam la rek waaw moom fa la yem quoi. Hmm? waaw démb fa lañ dugg fa lañ génnaat te la cinq ak fa la ñuy duggaat affaire yooyu. démb geste bi nga def bi daan ñëw ba si Ama Baldé te ñu bëri duñ jàppoon ni pikin ak jàmm gën dër bi la. pour wax la benn affaire. Ama Baldé bu ma joxoon a am guddi damay bëri ak moom. Modou. voilà. Modou andi wuyu voilà lu jar am si laam si laam. Ama Baldé ko joxoon léegi mu bëri ak barke alxuraan billaahi ba man làmb laa fi nekkal quoi man dafa ne maanaam démb da nga daan ba ma def si Ama Baldé walla tey jii man bu ma bër la rombee bu jaar sa yàlla mun naa jaar sa yàlla mais guddi bu ñu joxee avance damay bëri yow loolu teewul ñu béyee bëri maa yow waaw parce jantal grand la quoi kontaan kontaan nañ si yow lan ngay lan ngay sant booy yi mm-hmm. di sant ñëpp ak tàng ñàng yëpp waaw fils de Ron tamit ah di ko ñaanal yàlla may ko ndam ak booy di bëri ñoom sental ñoom Papa Ndiago ñoom Liss ndaw ak Zoka mafia bi yëpp bu ma limee damay juum boo yëpp waa mafia Touba bi Mbacke bi kii Papa yi bu ma limee damay juum ay Zoka ay Semu booy yëpp ay Emero laa soulagé ay Django booy yëpp ay xaar waaw laay les pro tamit. waaw sama sponsor number one. kooku sama waay la sama DG. laay les pro. miin ma ko laay les pro maa ngi koy bëggee. non mhm. Fatou ma la ne yaa sori warum. yaa sori kenn du moom liis. day daw rek ayca bëgg naa ñëpp ko waa. jaajëf booy jaajëfal naa leen ñëpp. ayca jërëjëf. wala jàppee jërëjëf sëñ Fallou Seck borom Tafsir Touba